asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah vendredi 18 décembre 2020 dañuy ñëw ak yéen ci yëglikaay yi suñu làmb la ñuy xëy doore ko yëglikaay bi di suñu làmb nag moom tey maanaam xëtam mu njëkk moom lam bi nga xam ne moom la ñu nekkoon te mu jeex muy saison wu 2020 ba ak la xam ne nii moo ca am ay jafe-jafe bi dafa xëy tey ñëw indilaat ñu lépp lépp maanaam ak fàttali lam ca njëkkee mooy la nga xam ne nii moom moo di saison ba ak coronavirus ba ba mu nee saax dugg ca mois de mars ñu daal di arrêté la nga xam ne nii moom moo di làmb ji bëre amatul wàcc ci géew amatul tuus noonu bàkk noonu lépp daal di taxaw ñu ne déet na waaye tamit yëglikaay bi ñëw na ci loo xam ne nii lu méttee métti la dal ci lamb ji mel ne ki nag ay wàññeeku waanam boo ay nit ñoo xam ne yàlla jël na seen bakkan lépp am ci li nga xam ne nii moom moo di ba tey ci saison bi nga xam ne mooy bu 2020 bi bokk na ci koo xam ne nii moom itam génn ci àddina muy Mor Nguer le 19 avril ba nga xam ne nii moom mooy ci 2020 bi ci la génn àddina Zil tamit bokk na ca ñooñ nga xam ne nii ci lamb bokkoon te génn moom itam mu génn àddina le 9 juillet bi nga xam ne ca la ñu génn Papa Yade di ab xale moom tamit nekkoon fa nga xam ne moo doon ca Lébuga ca Tëngéej moom itam le 3 août 2020 bi tamit ca la génn àddina Balla Gaye Ndour tamit nekkoon entraîneur nekkoon fa nga xam ne moo doon ca Géejawaay moom itam le 15 novembre bi ñu génn ca la génn àddina lépp am ci li nga xam ne ni moom moo di deux 2020 bi Aline Sarr tamit ci biir 2020 boobu ci la wàcce maanaam boog la nga xam ne ni moo doon ca banque ba nga xam ne ci la toogoon lu toll ci ñaar fukki at ak benn ka nga xam ne moo di Bira Sène jël ko Alioune Sarr le 5 novembre lañ ko wàccee Bira Sène daal di ñëw le 9 novembre moom tamit installé ko wala boog ñu installé ko mu jël place su Alioune Sarr lig ni ko laaj tamit ku ne xam ne ci 2020 boobu nekkoon na ci ci ay jafe-jafe yëg likaay bi moom ak tamit grâce yi ba nga xam ne defal nañ ko ko le 29 juillet bi nga xam ne ni moom tamit ci biir 2020 bi ba tey ca la am Sitor Ndour moo xam ne tamit le 9 mars moom tamit ca lañ ko ràjje woon mook ñeneen arbitre yoo xam ne ñoom la bokkaloon géew bi mu mel ni ki tamit même sëñ Modou Niang tamit yëglikaay bi ñëw na ci moom ak rendez yoo xam ne ni daal faussé na te lépp ci biir 2020 bi ci la am waaye yëglikaay ba yemu ca leneen loo xam ne ni tamit ñëw na ci mooy grève arbitre yow nga xam ne ni le 29 février lañ ko commencé woon tamit ba tey yëglikaay bi ñëw na ci ba tey loolu ci 2020 ma nga xam ne moo nekk ca géejawaay loolu lépp di ay mbir yoo xam ne daal yëglikaay bi xëy na tey ñëw ci ci ay jafe-jafe ak ay métit yoo xam ne moom atum 2020 waa làmb lamb dootuñu ko fàtte ba ilaa yow mi diinu sunu làmb moo xëy ñëw tey waxe lu mel ni ki noonu ba tey ñàkk fàtte googu ak corona ba loo xam ne andil na ko làmb ji rawatina fa nga xam ne nag moo di ca département de Mbour bu bëggee dégg-dégg xale yi mbër yi ca baree bari jël nañu gaale wutali Espagne mel ni ki juróom ci ñoom nag arrivé nañu bay dund Espagne waaye am na ci ñoo xam ne ni daal ay moor lañu yoo xam ne ni tamit ñoom it mu bokk nañ ca ñoo xam ne faatu nañ toll ci juróom-benn yoo xam ne nii daal faatu nañu ak ab boo xam ne moom la ñuy wax Pa Thiam di ëmbër nekk fa nga xam ne ni moom tamit moo di ca Mbour waaye ka nga xam ne nii nag moom moo di jee moom itam daal ñëw na di wax ak état bi rawatina nag ki jiiti réew mi xamal ko ne daal làmb ji ubbi ko lañ war a def parce que nag xale yi mbër yi ak yeneen xale yoo xam ne doomi réew mi lañ ñu ngay jël gaal ya di dem te xëy na saison bi ubbi loolu mën na bañ am jàpp na ne moom Bombardier tamit écrém ba sax moom ba mu jiite maanaam foofa moom kenn jógewu fa jël gaal dem Espagne waaye am na yeneen yoo xam ne maanaam ñoo moom a dëkk bokk ci écrit ba assurance jiite wala yeneen écrit ñoom dugg nañ ca gaal ya bokk na ci ñoo xam ne ni daal kuñ naan mbalka maag ak ka nga xam ne ni moom mooy mooy Pape ma nga xam ne ni mooy Pape ma Pape Maké Lamine Ball wala boog Lamine ak Ball 3 Feeraay ak nga xam ne moom mooy dun xaaf numéro 2 ñii moom maanaam boo bëggee dégg-dëgg yëglikaay bi ne daal ca géej ga la ñu des la leen ko yóbbee nag maanaam Espagne nga xam ne ca la ñu jëmoon ba tey ci xatu njëkku yëglikaay bi nga xam ne moom moo di sunu lamb Amadou Mbaye mi nga xam ne nag moo jiite les amateurs authentiques daal moom itam ñëw na tey xëy di wax ci daal li nga xam ne ni moom moo di mbiri dut jaañ moo xam daal ne na mu demi mu laajaat mandaak mu ñàkk laaj daal moom jàpp na ne loolu moom amu ca lenn loo xam ne ni loo ko ca intéressé laak yu mel ni ki noonu waaye yemu na daal ne na moom du tag boppam de ci ay capacité xam waaye jàpp na ne moom intellectuel la te boroomi capacité la ba tax na tamit tey bu nekk ci biir CNC ba di fa siège wala nekk fa conseil tamit ci président bi nga xam ne moom moo di Bira Sène daal jàpp na ne moom loo ci mën a dégg daal moom daal jàpp na ne loola kon xëy na lu mu mën la wala lees am ci moom yaakaar te jàpp na itam loolu moom lu mu war war a a doxal la buñ fa jógee dañuy dem ba record record moom la ñu xëy gis fa tey mel ni ki nag coronavirus ba daal fond ya nga xam ne nii génne nañ ko daa mel ni waa làmb ja daal lan ca am daa mel ma bëriwul de deux pour cent ba jàpp ne la boo ko xoolee nag mu nga toll ci vingt sept millions daal ci loo xam ne nii daal xaalis ba toll na ci un milliard yu tegal waaye waa làmb daal loolu lañ ca jot su record a xëy ñëw wax nu lu mel ni ki noonu leneen loo xam ne ni ba tey ñu ngi ko fiy coow muy benn fusion boo xam ne ñu ngi koy wax ci diggante Gris Fass ak écurie Ndakaaru foofu nag moom daa mel ni mbiri écurie Ndakaaru yee moom dañoo radicalisé wu maanaam daal ñoom mbiri fusion mooma moom entre Fass ak Ndakaaru ñoom d'accorduñ ca tey suba waxi noppi ñoom daal gisuñu loolu maanaam ñoom leneen la ñu gis loolu maanaam daal la ñu bëgg mooy ku ne dem bayali sa bopp rek boo góobee la nga la nga bay nga góob ko leneen loo xam ne ni wala boog yëglikaay bi ñëwaat na ba tey moom record ci koo xam ne ni daal mooy Sitor Ndour ak technique wala boog lu jëm ci wàllum daal ñëwaat na ci tey ak Sitor Ndour ma nga xam ne nag jëlaat na bangam fas yéenee doxal ba tey buñ fa jógee Equivox moom ku yeboo xaar fu du Awa ndax nag dem wax na lu yaatoo yaatu ci làmb ji nga xam ne ni ci la nekk di ci bëre comme mbër asalaamaaleykum wa rahmatullah mbekku internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar wala mbokku téléspectateur u Equivox TV ah Vox maa ngi leen di nuyooti di leen ziar di leen ñaanal jàmm di ko saaxu ci yéen ah di leen ñaanal jàmm bu baax a baax si ajuma ji ah tey di bés bu sell ñuy ñaan yàlla rek lépp lu ñu si ñaan wala ñu jaamu ko yàlla na ko yàlla nangu te bu ko nangoo wàcce ko muy xéewal ci réew mi wala boog si àddina bi yëpp yàlla mën na ko yàlla na ko def ndax moo ne ñaan leen ma xulle ma may leen ngeen sant ma ma dolli leen kon moom la ñuy ñaan rek lu nu jaax rek ko ko delloo waaw te ah, ñuy fàttali leen rek maam Abdou Aziz daan na ko wax maanaam nañu tàppe xol yi waaw fóot xol yi am na solo trop yéneente jàmm su ko defee rek pour man loolu bu amee yaakaar naa ne li des yëpp mën na bañ a loolu ñëw tamit du nu jaaxal loolu moom dañ koy fàttaliwaat di ko jëkk ci suñu bopp ñun ñi nga xam ne ñoo jàkkaarloo ak yéen wala boog man mi nga xam maa jàkkaarloo ak yéen di wax ak yéen tey nag ajjuma ji comme ni ngeen ko xam ne 18 décembre ah yëglikaay bi daa ñëw tey ci lu méttee métti loo xam ne jaar na fi maanaam saison boo xam ne ni bu doy doy waar la 2020 bi te bu bëggee dégg dëgg moom doy na waar lool lool ndax ku ne xam na ne ah bi mu ñëwee mois de mars la ñu tëj làmb ji bëree seetul ñu ne déet ne waaye yëglikaay bi tamit ñëw na ci ay bakkan yoo xam ne nit ñi ñoo xam ne ci làmb ji lañ bokkoon yàlla jël seen bakkan bokk na ci ku mel ni ñoom Jules Baldé Junior ku mel ni Mor Nguer suñu papa Balla Gaye Ndour papa Yade mu ñoo xam ne ñoom ñëpp ci làmb ji lañ bokkoon ñàkku sa am na ñeneen ñoo xam ne décédé nañ te xamuñu leen parce gis nañ fi ay mbër yu ñu lim léegi yoo xam ne décédé nañ te ñëpp ci askanu làmb lañ bokkoon loolu lépp am ci 2020 bi yaa dégg ah ñi nga xam ne nag dañoo ñoo dugg si gaal yi moom loolu moom dañ leen di wax rek ñu moytu ko waaye ñii moom ah moo xam ñoom Papa Yade ak Jules Baldé Junior ak ñooñu moom yàlla moo leen jël ci ay ndogalam ñi feebar nañu Papa Yade ku ne xam ne accident la defoon mais nag loolu lépp maanaam yàlla la rek du kenn dañuy ñaanaat yàlla rek mu yërëm leen te jéggal leen mu ñëw bépp doomu aadama yi ñu fa fekk parce que àddina moo tëddee noonu ñoom ña dem ñàkkuñu fulla ñun ñu fi des tamit fayda bàyyiwuñu fi wala man wala war amum xel déedéet lépp dogali suñu borom la kon yàlla na leen yàlla jéggal te xaral leen aljana waaye ba tey 2020 boobu ci làmb ji ku ne xam na bu ko arrivé woon kon loolu tamit ak cant la ba tey ci 2000 parce que loolu tamit ah neexoon na bi ñu nee gracier nañ ko wax dëgg yàlla képp ku bokk ci askanu làmb wala nga di Sénégal sax bëggoon nga ci loolu ndax li kenn yéenewu ko mu ne ci kaso bi wax dëgg yàlla ndax taxawaayam ci réew mi rawatina làmb loolu tamit nekkoon nouvelle bu neex bés boobu waaw loolu mu ngi amoon le 29 juillet rendez-vous sëñ Modou ñaarateeg ñoom si toon yu ñu rajo woon ak yooyu yëpp amaat na Bira Sène ñëw jël place loolu lépp ci 2020 bi ci la am muy loo xam ne daal li ci yëngutu bëri na waaye daal xam naa moom nu ngi ñaan yàlla rek moom mi man tey def lépp luñ ci amoon comme ay naqar yàlla buñ duggee si yàlla nañ yàlla na ko fi yàlla yemale 2021 bi dàq ko fukki yoon ak juróom loolu la ñuy ñaan waaw parce que itam ah loolu moo war mooy li nga xam ne daal mooy ñaan ba tey mbuur googu rek comme li ngeen ko wax rek mbër ya fa dem ci immigration yooyu gis nga lim nañ ko léegi bombar yi itam wax na xam naa ne daal gëm naa ne bu saison bi ubbi woon moom mbër yi di compétir ci lutte simple bi di gagné dara yaakaaruma dinañ jël ay gaal waaye nag mbër mu toog lu bëgg a mat atum yàlla wàccul ci géew compétirul wala ke wala jaaykat wala keneen ak keneen su yàggee ah dina wuti beneen pexe loolu nag gënaluñu ñaanuñu ko dañu bëgg ñu toog fii ci réew mi doon de metti na waaye ñi jiite réew mi tamit nañu bàyyi xel ci loolu jéem a xool lu ñu améliorer mbir yi pour que ku ci ne say activité nga mën ca delluwaat parce que am na loo xam ne suñ ci nekkee rek xule dinañ dem corona bi day mel ni moom dañoo moom daa doon suñu yàlla maa ngi jéglu ci kàddu gi parce que nag bu fekkente ne dañu dem ba ragal ku gën ragal bu mu ëpp gi dina metti mën nañu fagaru yaa dégg mais du tere ñu dox suñu activité mais di ko dox ci doxin boo xam ne nii danañu méngoog li nga xam ne moom la docteur yi di digle nga xam ne bu keroogee ah dinañ mën a yëngutu xule nga am dara keneen am dara keneen mais nag buñ neen lépp ràpp rek day metti de waaw te ku bëgg dee weq ko Amadou Mbaye moom ñëw na tey ci waxtaan wu yaatu ci digganteem ak yëglikaay bi ah bokk na ci loo xam ne ni wax na ko ci dem ak du jaañ ak moom capacité yi nga xam ne jàpp ne ne am na ko mu ngi ci moom doonte du tag boppam waaw olof ne na ku tag sa bopp sa doo waaye saabu it da fóot boppam waaye xam naa nag wax dëgg yàlla koo koo xam ne moom intellectuel la Amadou ko xam ne ko ziar moo jiite les amateurs authentiques jàpp na ne tamit saison bi kenn ko mën a ubbi mooy président Macky Sall du ministre bi du ki nga xam ne moom mooy président CNC defe naa loolu tam dëgg la ndax président mooy ministre bi ay arrêt lay def te ku ne xam na ne arrêt ministériel moo décret président bokkuñu waaw du benn décret président moom moo ëmb lépp moo sut lépp lu ñuy xaatim kon yaakaar naa la mu waxee tamit jares na mënees na koo nangu président Macky Sall daal laa jàpp ne tey moom moo mën a génn bindaat décret ndax moo bindoon décret arrêté lépp luy activité kon defe naa moom moo mën a bindaat décret te bu bindulee ministre bi du mën a def la mu bëgg a def bu bindulee ministre président CNC ba waxi noppi kon defe naa loolu Amadou Mbaye wax jar na bàyyi xel record ñëw na ba tey ci ki nga xam ne ni mooy coronavirus beeg fonds nga xam ne génn na ci yu tegal te waa làmb ji daa daal lañ ca jot boo ko calculer 2 pour cent la toll maanaam 27 millions loolu daal la ñu record muy loo xam ne daal yaakaar naa ne ma nuñ nuñ ko séddalee de leeru ma waaye dama jàpp ne làmb est-ce que loolu mu jot tuutiwul parce que promoteurs yi mbër yi ak ñeneen ak ñeneen ñi ci aju ci axlu làmb ah man yaakaar naa 27 millions bu fekkente ne nan ko séddalee pour man sama xalaat bu fekkente ne loolu noon la demee yaakaar nu ma ne yaakaar naa loolu ndaw na lool ci askanu làmb ba tey fii suñu woon écrit Ndakaaru ak écrit Fass bëri Ndakaaru moom ne nañ ñoo bañ ñoom ci li ñu wat record wax tey ñoom daal loola moom ànduñu ca tey suba waxi noppi si tonduur moo xam tamit yëg li bi ñu ànd na ci moom ak ay ab siège am buñ ko joxaat maanaam muy siège waat loolu moo lay wan ne rek bu yoon jeexul waxu sul di jeex xulle di la bëgge di la ñaanal jàmm waaye di nuyu Serigne Fallou ñaa ah borom bu rafet bi gis ngeen dem fi ma génn ci Jordan moo fa jaar nekk ca Maroc maa ngi koy di nuyu Asi Diagne moom nga xam ne suba lay fêté anniversaire am le 19 décembre Asi di la wax happy birthday to you rek yàlla na yàlla defal la fan wu gudd defal la wér yokk say xéewal barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam ku baax nga ku bëgg Babacar nga parce que xul dafa am loo xam ne ku ko def nga wax ko dafa jóge Mauritanie ñëw fii Sénégal nekk fa mu nekk di sol dàllam ñëw ba fa ma ne wan ma ne vraiment am naa may liggéey kon Asi ma fayam moom ci ñi ma jàpp ci ba ma déparé ci la bokk te ba tey bàyyiwul saa su ne mu ngi may poussé ma gën a ñaax kon soxna Asi yàlla na sa jàmm yàgg maa ngi lay bégee bu baax a baax di bégee ñëpp ñiy commenter revue bi ak ñi koy ñoom Cheikh Basak fàttewuma kenn ñoom Adama Ndiaye Arona Camara Mbaye ñëpp maa leen di gis gars yi maa ngi bégee ñëpp waaye las création moo fi jaar tey laasana maa ngi koy bëggee bu baax a baax a baax di ko ñaanal jàmm ñaw bi rafet na trop bassin bi nag ki fi jaar kenn la mooy Babacar Ndaw borom marché Salem ah xulle yàlla na sa jàmm yàgg